non ma man day buur maa lay fay. di leen nii ku si nekk sa tur sa sant. waaw di santaat yàlla bu baax a baax di julli senante bi di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla na ñu yàlla xaare daw si di ñaanal sama yaay yàlla nag ko fi yàlla bàyyi ba si kanam ma kanam. di wax Sénégal yàlla na fu jàmm yàgg loolu te wér di fili di félicité tamit sunu yi ñu ngi leen di félicitation ñoom ñëpp waaw ndam li moom waaw kontaan nañ ci bu baax a baax waaw. combat bi yàgg na. bari na tey yan torof torof la mën a jural athlète ci combat bu toll nii. waaw boo xoolee euh, boo xoolee pousse poussaat yi euh, benn mën nañoo wax. yàlla sunu borom la yëpp sax la ñuy wax ne yàlla sunu borom la ndax yàlla sunu borom moom lu mun namu si yow rek ala ku yaan day am waaw ñun moom loolu noonu lañ ko jàppee quoi moo tax dañu woon dara su ñun loon ngi doon entraîné guddeeg bëccëg waaw loolu la quoi. Mm-hmm. <laughs> Reug Reug dafa changé communication. stratégie la parce que li nga naan gëm la sa maal mën xale maal ëpp doole. Mm-hmm. mais léegi rek daal waa mais non non man du ma mës yambar yow ndax lii yeewu si man lii nelaw si man yeewoogul quoi mais bu yeewoo rek incha allah dinañ xam kan mooy champion wala kan mooy mbër mi. waaw mais euh, Reug Reug bi ñu la nuyoo siyaar la bi ñu gisee sa diggante ki nga xam ne mooy Gouye Gui taxaw bu ñu gisee sa communication bu ñu soog a taxaw dafa mel da nga desee euh, nawloo adversaire bi à 100 pour cent. non Gouye naa ko nag wax dëgg yàlla mooy maanaam tey jii gis nga àdduna répété naa ko répété waat ka répété waat ko kon jaruma si dem au jusqu'au bout quoi tey jii gis nga mbër dafa doon loo xam ne tey jii sa combat booy wax sa ba sa combat taxaw man sama gis-gis wax amatu fa quoi xam nga lu ma expliqué liggéey moo fa des moo tax wax ji ma jële ko tekkee ko ne di liggéey waaw loolu la ko ci ba du ma sa denc ci àdduna xasoon moom guy gi waat teg te barki alxuraan barki Cheikh Tidiane waaw dana la jàpp guddi la mm, yàlla baax na nañ bàyyi ba baax na nañ bàyyi ba si ba bis ba rek incha allah mm. xam fu wànne di mu jekki bëtam. waaw bëri dóor rek rek problème mu xeex. Mhm. nag boo leen xoolee guy gi mënta xeex. guy gi mënu xeex non non guy gi xanaa xamoo guy gi maa ko dàq xeex. guy gi mënta xeexle wax jee fi nekk nii rek. mais guy gi mais benn kawo loolu loolu lan la loolu mbalaaw la gos mbëkk ka. Hmm. da kaa rek doonul kuu boo xam ne kii da xam ne kii kuy dóor kuu bi ab ragal moo dóor kuu bi. Hmm. looloo tax mu dal sa waay ay dóor kuu di xàcc loolu du an loolu du du mën a xeex xeex fii la ak xool coup bi xool ni ngay dóoree ku xool ni ngay maytoo ku man kenn du ma dóor coup may kenn du ma dóor coup ma gëmm non jamais de la vie gan gi day gëmm waaw kon gis nañ combat bi xeex mën na ci am. lépp lépp moom kay dégg naa ko moom mu ne entraîné wul trois courses la jëloon doon xeex. ah nee na fu mu fu mu gën a mité mooy maanaam fu mu dóoree rek nga nelaw. Hmm. maa ngi ko siy ne na na maanaam li mu wax noonu. nga la waay bu ñu demee ba si jour boobu ba si bu mu si dindi dara dara dara. Hmm. waaw mais maa ngi lay wax lu tuuti te bëriwul lii xew sa géew ba. Hmm. man la. <laughs> bi nii ah, enceinte ba dañu bi da nga yokk masse. adversaire ñun dañuy liggéey ñun ay xale nañ hmm. ñun moom dañuy liggéey ku ñu xam moom liggéey nañu xamee. xam na ne ñun duñ lu gën a buñ ci euh, combattant mooy maanaam nga simmeeku. ñu naan ci mbayam liggéeyul loolu man defet la si man. man fu ma simeeku damay nekk si état am doole. waaw li si des ñu bàyyi loxo suñu borom. waaw mm. na mm. <laughs> loolu du si wax dara ndax MMA ak làmb bokkul. ñu ngi fi. Mm. addunaa ngi fi ñun ñëpp a ngi fi. Mm-hmm. yàlla baax na nañ dem ba si kanam incha allah dinañ xam kan mooy ragal bi dinañ xam kan moo amul fit. dinañ xam kan moo amul garde. ay na ci booy yi nekk ci yoon man bokkuma ak booy yooyu. Ama Baldé bi mu tëwee moo moo ko fi arrêté. bokkuma ak booy yooyu. 2012 hmm. 2000 hmm. déglu nga wax. waaw ñu ngi si 2022. 2022 ok ñaata ñaata. 10 ans 10 uh-huh. at bi day yokku. at bi day yokku. doole ji mën ta yokku. doole day wàññeeku non day wàññeeku. <laughs> ñun suñu doole yokk waaw ah. <laughs> loolu la ka ba pare soloon na fi ndox. soloon na fi ndox waaw. <laughs> guy gi soloon na ah. gis ne bi Ama di gën a tër. guy gi di ñëw di tër. guy gis Siteu nekk sa doomu ndey mën naa ne sax combat bi revanche la ci yow. man ngay wax ci loolu. nit di nga fuuf mu daan foofu laa si yow. xanaa déggoo ma la nit ki. di nga ko am man fuuf jour bu ñëw mu daan la lamb moo tëddee noonu. li lamb day ëmb day xëy day xëy rek wasin lamb moo mel noonu. lamb da ngay ñëw teg étirage étirage bi bii laa laa bëgg a kii nga ñëw si lamb ja juum. mu ne la yaa nga def kat at mu ne lay yaa mbas la nga daan lamb moo demee noonu. yaa may dégg moo tax may la di nga daan koo xam ne moo la mën si lamb. mais ñun dofuñu lu ñuy def xam nañ ka fu ma bëgg sama bët fii fu ma ko teg xam naa ka man dañoo yaakaar si man roi des arènes guy gi guy gi kenn yaakaarul moom roi des arènes attend rek moo ñëw ma ne la man dañoo yaakaar si man roi des arènes guy gi kenn yaakaar si moom roi de arènes waaw a dama kaa xam rek yéen ñii journaliste yéen ñëpp xam ngeen kat yee yéen ñii ñëpp xam ngeen yéen ñii ñëpp xam ngeen man pa buy communiqué si man danaan la kii séntu naa moom si roi des arènes est ce que benn pa mooy communiqué ne guy gi gis naa si moom droit des arènes boo amee ngeen ne ma am na. wala ngeen ne ma damay fen ah gaal gi foo ko ser gaal gi waaw <laughs> moo ko suwaat bu baax a baax. Ah. gaal <laughs> oh. gi nga may laaj daal mel laaj. waaw gaal gi mu ngay géej géejewaay. du fa mës a jóge. waaw ah. ah. gi dañ koy yab gaal gi rek. Hmm. mën loolu. am na ouragan beneen buy ñëw. Ah. nañ ko xaar. lu bees waaw en tout cas daal. en tout cas daal mosoo gis ndaar buy jël pee. ndaar buy jël pee foofu